J'aimerais bien savoir, la belle Astou, toujours rayonnante, qu'est-ce qu'elle nous a préparé dans Cuisinons euh, waaw ndak euh, tey nag ci seen rubrique Cuisinons ensemble damay bàyyi waa régie rek ñu ànduñu suñu élément ñu xool ko et on revient sur le plateau c'était cuisinons ensemble avec euh, Astou gis nañ tey li ñu indil am na solo lool. waaw gis nga. Mhm. ndax euh, xam nga ñun moom euh, ci Vous et la ñu wax donc rubrique cuisinons ensemble dafa nekk rubrique boo xamante ne xam nga ñun Sénégal. dañu nekk dëkk boo xamante ni euh, peut-être euh, nekkuñu comme pays européens yi nga mhm. xam ni pratiquement gars yi duñu togg lépp ci restaurant yi lañ koy uti ak yooyu ñun fii mhm. dañu am ay jeeg yoo xamante ni ak ak des jeunes yoo xam ne euh, dañuy bëgg machallah di toggal seen ay borom kër ñenn ñi di toggal seen ay wayjur mhm. seen frères et sœurs donc c'est bien ñu leen di andil ay recettes yi nga xamante ni donc c'est facile à cuisiner voilà changer un yoo xam ne facile yomb ba noppi neex a digérer donc ay 10 à 15 minutes maximum 30 minutes nga mën ko togg machallah mu neex loolu loolu moo tax a jóg li nga xamante ne moom mooy rubrique cuisinons ensemble mhm. tey nag euh, comme ni ngeen ko gisee ci élément bi ñu andi leen sauce Thaï sauce nag euh, boo ko déggee mu nekk une spécialité asiatique mais ñun euh, ci suñu élément dañu ko dañ ko dañ ko sénégaliser daal maanaam boo xoolee day mel ni comme maafe parce que gis nga am na ceeb def nañ ginaar def li nga xam ne mooy tigadege am ay légumes macha allah boo xoolee day mel ni tigadege dafay mel ni maafe donc seule différence bi mooy dafa am li nga xam ne mooy crème fraîche donc pour xaw ko moderniser un peu sans doute c'est ça donc de façon ramassée ci seen euh, recette comme tabaski bee ngi waaj a ñëw nag j'espère que vraiment dinañ mën a def musóor def tagal def sañse ndax xam nga ni sañse dafa ànd ak togg dafa ànd ak togg ndax da ngay def premier sañse nga ruusi effectivement balaa ngaa yekk papa salaam nga dugg sangu ba set defaat sa beneen ñëw yàq. man yow lay wër. Ah? man yow lay wër. def sa fëlaale. man sama kër boo fa nekk rek. bàyyi benn rek mu saf mu saf lépp nga ñëw taaj.